Assane Gueye source a lañu koy tàmbalee gis-gisam ci banlieue ndakaaru bi awlu lool jamono yi ak waame gu mitti rax ci dolli wote yu gaare gréew mënuñoo dem noo dikk yéeni kaay bi ne safari aftu yi ñooy sàkku yokkuteem seeni payoor tax ñu gaare wote ya diiram ñetti fan moo waral it ñenn ci banlieue bi danoo mujj dox wala ñeneen ña di xaari waxtuy waxtu ci arekaar yi ca gaar bu téyeer moom foo sànni mbàtt mu tak saxaar ga fees dell la def ci garas Colobane donte ñu ne rapide yaa nga doon fexee wuutu ak njaweenu chauffeur yi bëggoon yokk paas yi profité ci situation bi su dee nag wàllu waamee gi di inondation yi ak nawet bi Sud Quotidien ne jëwriñ ju nu dénk ndox mi ak ngoom yore wàllu xeex beeg waame googee doon nañu janook taskatu xibaar yi ngir xamal askan wi nguur geeg matuwaay yi mu ci jël pexe yu am solo yoo xamante ni taxawal nañ ko ngir ak oyofal ci nawetab ren bi lu toll ci téeméer ak juróom fukki bërëb yu nuy amali jumtukaay ñoo di ndox moomee ci juróom-ñeent fukki commune yu Sénégal ca Touba Mbàkke ñu ne programme ñaar fukk ak ñetti milliards lañu fay doxal bokk na ca taxawalum ñaari bassin ànd bi yore liggéey bi ca liggéey boobee mu ngi avancé bu baax li lépp nag taxul état bi garanti ne ak waame moom du am fenn ci Touba ana fu état bi ne loolee népp laaj la kaay bi direct news xëyee lu jëm ci wàllu tukki mi ci anam yu dëppawul ak yoon ndax ñu ne géej gaa ngi wéy di lekk gune yi rek keroog fukk ak juróom ñett yu téer ca wakaam ay nit yu organisé yooyu xeeti tukki ñaari wéere ngi ca tiituñ ca dara mbaa du dafa am baara yëgoo diggante ñooñee yóbbuwaate ak ñi leen war a kar seeni pexe libération mel ni ku cay tontu ca naan état ngi fi ne ñetti départ rek gàntal nanu ko ñaaree doon waaje ca ndar ak jógoo beneen ba ñu karee ko ca baax ñi gouvernement bi indi nag ay leeralam ci Le Soleil bu njëkk lu ñeel bakkan ya rot ca wakaam ñu ne du fukk ak juróom-ñett waaye fukk ak juróom-benn seize ca bato marin bi du mooy ki mbëkk gaal gi ñu teg ca ne am na ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti aji tukki ci anam yu dëppowul ak yoon yu nu kar ca Maroc di ay doomu Sénégal ca ñu ngi ci waajal gi ngir wàññi leen ñu ñibbisi foofee ca Maroc ca Daxla observateur ne aji tukki sénégalais yi nag ñoom yaakaar bu tas lañu fa nekkee ci yéenikaay bi kuñ naan ca Baaba Top am ñaar fukki at ak juróom-ñaar ne moom dootul dugg xeeti tukki yi nga xamante ni coono ak tumranke rek la ko dugal ses fax ca réewum Tunisie naka noonu sénégalais yi fa yi ca doon gént wutali ca tugal observateur ne ñoom it naqar la ñu fa nekkee ki jafe-jafey neen jumtukaay yu bariwul salaire di payoor yu tuuti ca néew ay pexe pexey siifeeki yàkkataan reportage la fa yéenekaay bu taaxam El Hadj Eliman amal ci jafe-jafe yi fa sénégalais yi nekkee ci bëccëg gune foofu ca Sfax ca Tunisie le quotidien ñëw ci état bi ak ni mu taxawee ngir dakkal waral moo même xeetu tukki ministre Abdou Karim Fofana porte-parole bu gouvernement bi ne ci njëlbeenu at bi rek juróomi téeméer ak fanweeri nit jàpp nañ leen ñeent fukk ak juróom-ñaari yam di aji yóbbuwaatee sisir nañ tey juróom-ñeenti gaal ak juróomi moteur gendarmerie moom teg téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ci ñu bëggoon tukki ci yooyu anam téeméeri ak juróom-ñaar fukk ak ñett di doomu Sénégal ñaar fukki ak ñaar di ñu fekk baax bitim réew la Yoff Warang Joal Mbour Saly Pointe Sarène Diouloulou Pikine Saint-Louis wàllu politique le mandat xëy Moustapha Niass donte jotul toog ñu ne ca toogu président ca palais ba ak xereñam gépp xam-xam bi jaar jaari yi macha allah donte it ñu ne mu ngi ci à la traite politique jamono yi terewul bokk na ci ñiy tànn buur 2024 di faiseur de roi ci waxin ak mission bu am solo bi ko président Macky Sall dénk ngir mu déglul ko natt peese ñi taxaw samp seen ndënd ci biir Benno Bokk Yaakaar yéenekaay bi di réew mi moom ne président Sall jamono yi moo jaaxal ay farandoom ak pataaral gim boole ci tànnee foog mbër mi leen war a demal 2024 yi ci yàbbiwu ca bu mu jógee Rwanda ak léegi ñu naan déeta waaye ay fan la ci teg mu jëlaat avion dellu ca bi jàpp ne jamono yi fu ne mën na faa génn nag imprévisible moom xamal ñu ne ci juróom-ñetti weer yi des ci départam moom président Macky Sall taxul mu wàññi njaxlaf gi ci liggéey bi dina amal sax ñu ne remaniement di yeesal ñeel nguur gi ndorteelu weeru ut Amadou Ba dina ca yebbeekuwaale poste sport ak élevage yi mu yanuwaale boobu ak léegi gouvernement bi ñu ne buy may président Sall lay doon mu yeggale projet ak liggéey bi ngir Sénégal ngir mën a génn ci làng gi ci anam yu taaru wàllu sport kaay bi di stade wax ci tuxum Sadio Mané ca Arabie Saoudite kaay bi ne yëf yi ku mooy wul daañ ko nase ci Tokyo ngir kon demam moom Sadio Mané ca Al Nassr wàllu làmb sunu làmb ne Ama Baldé Gris Bordeaux nas nañu ko benn fan ci weeru octobre 2023 Pikine d'accord nenu waa Fass ñooy mbase jamono yi ndax ñu ne Ama Baldé ak Abdou baaxum signé nañu demb Gris Bordeaux moom weeru décembre wala janvier 2024 moo ko